amma baadu fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilah ñoo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di sant itam mbokk yi nga xam ne ñoo def ay jéego ba amal euh, jataay bii ci fan yii wala jataay yii sax lu am solo la ci ndaw ñi ñu jéem a taxawee ay anam yoo xam ne ñoom ñooy taxaw organiser ko woote ci saytu ko tegal lépp ci yoon su jàllee ñu daje xool la ca manqué bu ëllëgee ñu mën ko mottali ndax loolu mooy tàggat doomu aadama yi ba bu ëllëgee ñi mën a taxawee loo xam ne si lu ëpp solo lii lay doon te terrain bi muy géewu daawatu ilallah kenn ku ci ne da nga fa am ab cër boo xam ne danga ko war a taxawe su kenn bàyyee wàllam wala bu ñàkk koo taxawee nam jaadoo rek su boobaa daaw bi yépp day am lu ca jóg lu ca manqué di leen sant it ci thème bi nga xam ne tànn nañ ko ndax bu ñor la euh, toll nañ ci aajowoo ko loolu àdduna sax tollu na ci dajewaat lépp lu jëm ci wàllu finance ñu jàngataat ko te ñoom ñi ngi koy def sax ñi ngi dajewaat di xoolaat ci wàllu finance yan système lees war a mën a jël ngir àdduna mën a dog yoon woo xam ne yoon wu jub doon ña dul jullit foofa lañ toll tey te ñooñu xam ngeen ci àdduna li jëm ci wàllu économie ñoo ko jiite gannaaw loolu ñu ngi sant al imam Ali Ndaw ci ardu bi nga xam ne def na ko ci mawdoo bi présentation la boo xam ne daanaka bàyyiwul dara ànd ak waxtu wu gàtt bi lépp loo xam ne aju na ci wàllu banque yi la ca ëpp solo ci lu jullit bi war a xam jaar na ca wax ko joxe it ay proposition yoo xam ne su fekkoon ne jullit yi taxawe nañ ko kon saafara lay doon ci jafe-jafe yi nga xam ne jullit yi ñu ngi koy dund muy saafara soo ne day jóge ci seen biir ñoom waaye nag la chaque ne loolu lu am ay gàllankoor la al imaam Ousmane tudd na lenn ci gàllankoor yi mu doon yi leer naññ mu di lu mel ni bànk yi duñ ko nangu danañ bëre foofu bëre bu bare bari ndax bañ jullit yi am lu taxaw loo xam ne lu jóge ci seen biir la waaye da di organisation bi bu demoon ba taxawee noonu bay taxaw te jóge ci biir jullit yi ñu gëme ko noonu di ko taxawal kenn da ca dul mën dara ndax mëneesuta xeex ak ñépp mënees naa xeex ak ñaar ak ñett ak ñeent waaye ñëpp moom mëneesuta xeex ak su ñëpp àndandoo organisé organisé seen mbir teg ko ci wenn yoon kenn mënu koo xeex dangay ñëw bokk si ja kay wala nga jóg fa yow su bopp beneen bi mu tudd muy li jëm ci wàllu maandu tomb bu mag la bu mat a bàyyi xel muy fan lañuy jaar ba askan wi ci seen jëmbi bopp ñu taxawe palaas bi nga xam ne jullit foofa la war a nekk muy ci wàllu maandu loo moomut nga ba fa waxuma loolu waaye jël dem ba weesu ci loo moomut nga ba fa waaye fooy jaar yow mii ba mën a fàggu ba jariñ ñeneen ñi foofu ruux boobu fan la ñuy jaar ba nit ñi di ko noyyi mu mel ne ngelaw nga xen xam ne kenn ku ne li ngay xalaat danga koy xalaat ci say moroom da koy xalaat ci say moroom li may am fan laay mën a jaar ba mu jëm ci ñeneen te xam ne kat suñu borom tabaraka wa taala lu jëm ci wàllu alal noonu la ko tëre maanaam qadiyatul intaaj ci lislaam qadiyatul intaaj dafa am irtibaat ak qadiyatu riayatil fuqara mooy kenn nit ku nekk ku ne ku am xel ku ne bëgg dara sa xel a ngi ci fooy jaar ba wut alal wala déet fooy jaar ba am alal te borom bi tabaraka wa taala ku am alal ku ne tey jullit faaw nga bàyyi xel ñu ñàkk ñi xoola googu jokkaloo kon jullit bi mbiram itteem du mooy man fan laay jaar lislaam ni mu tëre wàllu finance daf ko sellal ci anam goo xam ne mbirum jaamu yàlla la moo war a gën lépp bi muy xëy di fàgguñu ji alal ji nekkul ci xelam fan laay amee lu ma dunde man sama njaboot waaye weesu na foofu fan laay amee lu may dunde man ak njaboot gi waaye fan laay jaar ba ñii may dajeel ñi amuñu luñ dunde itam ma leen a ma mën a participer ci jàppale leen yàlla xam na ne jullit bi léeg-léeg mu gis yenn taxawaay yoo xam ne ci ñurul jullit day wax ne lii xaw ma fu ñu ko sàcc waaye jullit a ko moom waaye fu jaar ba ñooñu jël ko ba noppi des mel melokaan wi imaam Galaajo doon wax léegi dem naa ci benn dëkk boo xam ne du dëkku jullit ñu nekk ci benn restaurant gis ay nit di dugg ñii ngi laaj kafe ñii di laaj palaati yu ñuy lekk ñenn ñu ne di laaj lañ soxla ma gis ku dugg laaj ñetti palaat ne benn bi lay jël ñaari palaat yi solidarité xawma luy loolu ma gis ñu bind ci benn tableau électronique nangami palaat solidarité yoo xam ne moom tableau baa ngi affiché loolu moo ci nekk maanaam nangami palaa am na fi yoo xam ne solidarité la nit ki day ñëw ne jaay ma ñaari kaasi café benn bi ngay indi beneen bi kaasu solidarité la ñu daal di bind ci tableau électronique bi ne am na foofu kaasu solidarité bu keneen dikkee defaat noonu day ma ji nga gis tableau bi nangami palaa yooyu solidarité ngi fi nangami kaasi café ngi fi yoo xam ne solidarité nangami butéeli boisson ngi fi yoo xam ne solidarité ngi fi nu ñuy def su miskin accès faqir ku amul dara waxtu añ jot bu dikkee day xool palaat bi ñaata palaat solidarité fi nekk day dikk toog ak loxoy keseem borom restaurant bi ñëw mu ne ko palaatu nangam laa soxla waaye ci solidarité bi lay doon ñu daal di indi benn palaat jox ko mu añ comme ñëpp benn chiffre daal di rot ca chiffre ba ñu bindoon ci tableau ba ñu yëg na benn palaatu solidarité ba dem na bu noppee ne jox ma benn kaasu kafe ci solidarité ñu jox ko kaasu café mu naan bu àggalee jóg dem ma toog di xalaat ñii fuñ jaar ba jël lii ba yóbbu ko bàyyi jullit yi waaye ma wëlbatiku xool itam nag sun askan ku ko fa defoon tey ku ko fa defoon maanaam ñaata nit ñooy ñëw xaalis nekk ci seen poche ñi ñëw ne damaa soxla palaatu palaatu solidarité foofa la yëf ya nekk kon éducation bi ak defar doomu aadama yi am na lum mu aajowoo sun askan wi dafa aaje xoolaat liggéeyaat tëggaat lu tax doomu aadama ci sun askan wi ñu mën a defar benn cabine téléphonique ci mbedd mu ñëw di def ay pexe yu mën a def ba téléphoné te xaalis du dem keneen ñëw di def pexe yu mën a def ba xaalis ba nit ña téléphoné mu ne ci biir cabine ba nan lay mën a def ba yóbbu ko benn table publicitaire nit ñëw kuy liggéey ci ay weñ dajji ko yóbbu dem liggéey ci ak satala wala dara ñëw di ko jaay askan wi toll foofu mbokki jullit yi soree na ak fii imaam Alioune Badara Ndao di waxe sori na ko fa ngay mën a convaincre doomi aadama yi dox nga di leen gis nii ñii nga xam yow bañ man a gëm ne kenn ku ne mën nga boo xëyee génne cent franc ci sa poos joxe ko ne lii dama ko joxe ngir yàlla mu jaral leen ko ñu xam ko sore nan ak foofu fi mu toll kon liggéey bu rëy des na beneen bi ci des ma koy dollil imaam ci ñaar yi mu tudd muy taxawaay bi nga xam ne banque yi xas nañ ko yéene danañ ko taxaw ci xeex lu mel noonu waaye jàpp naa ne boobu xeex bu ndaw la mënuñu ci dara su fekkoon ne julli di bennoo nañ beneen bi ci des mooy wàllu maandute boobu kooku laaj na liggéey bu rëy rëy ci defar doomu aadama waaye beneen bi ci des mooy bennoo gim laaj bennoo gim laaj sun askan muy askanu senegaal tey man de gis naa fu bari ci àdduna waaye nii ñu séddalikoo ay pàcc pàcc fu nekk as kuréel nekk fa kuréel su nekk jàpp ne yow dong fa nga nekk foofu la yëf ya nekk ku dul yow ku ne sab noonu la wala bokkul ci yow ala kulli xaal loolu de gisuma ko feneen soo taxawoon tey ne dañoo fas yéene jullit yépp kenn ku ne ñu jël ci yow cent francs tey dix million yi comme ni ko imam waxe pour ñu mën cee am trois milliards boo jógee taxaw fa ñuy jëkk a xool mooy kooka fu mu bokk ñu ne ah kooka kat tarixa sàngam la bokk walla kooku kat amul tarixa kon seen mbir la bëgg a toppatoo kon mbir ma am na yeneeni pakk yu nekk ci yoon wi woo xam ne su fekkee ne danoo toog di xalaat rek la war a mën a defar wallahi li mu waxul mën a defar la waaye nag àggagun ci am na ay jéego yoo xam ne ci tarbiya muy yar nit ñi jàngal leen tazkiya leen na yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon def saxaaba yi ba seeni yëg-yëg bi gën a rëy ci seeni xol mooy yëg-yëgu lislaam leneen luy ñëw door a ñëw gannaaw bi waaye nit ñi bi ñu leen gëmloo yeneen nit ki lu mu gëm lu ne jaral na ko lu mu gëm lu ne la mu gëm jaral na ko gis ngeen ay kuréel taxaw nañu fi yoo xam ne li ñu réaliser ci wàllu alal kenn xamul nu mu li ñu wàllu li ñu réalisé ci wàllu alal kenn xamul nu toll ca turu kuréel booba lu ko waral mooy loola lañ gëm kon soo fexewoon ba nit ñooñee lañ gëm ñi gën koo yaatal ba mu doon lislaam joj kese nag yoo xam ne amatul gàllankoor digganteem ak beneen jullit benn jullit amatul gàllankoor ak diggante benn jullit jullit yi rafat raxas seen xol yi ba tawxit nekk ci raxas seen cër yi ak seen doxukaay yi ba sunna nekk ci raxas seen jikko yi ba sell nekk ci bañ mën leen a wóolu ci wàllu maandu te ni ko imaam waxe su boobaa jéego bu mel nii day yomb lool day yomb lool dadi nag li nga xam ne moo dal suñ askan yi dafa dafa metti wetu diine gi boo xoolee dellu gannaaw gi moo jur lépp waaye leneen def caa dolli kooti muy seeni noon bañ leen tàmbalee xeex dafa yàgg te xeex bi dafa doon xeex boo xam ne dañ ko tegal plan bu tegu ci yoon surtout lu aju ci wàllu finance ak alal plan lañ ko teg boo xam ne li muy firi yemut ci senegaal rek waaye réew yi néew doole yépp raxas la fa nekkoon ba mu jeex tàkk ba duutuñu dese dara ci alal fi mu nekk lii réew yi di dund di jiiñante ñaan ñu ne defe ñee ca dese yóbbu xaalis la turi turi chiffres yu rëy yi nekk fi te lu génn rek daal di ne mes dañ ko gisati ñu defe ni ñenn ñi dañ ko yóbbu wala dara fekk na système bi ni mu tëddee banque yu mag yi nekk ca kaw ñu naan la ay banque mondiale ak ay FMI sunduq naqd dawli ak yeneen organisme yu mag yooyu ñooy ay ay njuuma yu am kàttan yoo xam ne dañoo bóof ci kaw kaw état yi labal leen ci ay bor ba nga xam ne amatuñ yenn pexe dem nañ ba àgg ci état bi sax am liberté ci biir askanam di def li mu bëgg loolu daal koy jafe dañuy ñëw di ko tëral ay plan defal lii yokkal lii defal nii yokkal fii yokk yi di jëm kaw nit ña di yuuxu ñu defe ne état bi moo toog rek di def lu ko neex fekk lu mu tëyut la ay plan yu ñàng lañ ñu tegal ci kaw loo xam ne pour man cee jógewaat laaj na liggéey bu dëgër boo xam ne ci jullit yi lay jóge ci askan wi ci seen jëmmi bopp foofu lañ ko yaakaare waaye nag yaakaari wuñ ko feneen benn waaye daf ci joxe misaal mu ne sax lu lu am la sax nee na pour wane capitalism ni mu tëddi ci wàllu alal ak réew yu mag yooyu niñ ñu réew yu ndaw yi ne dañoo jàngal nit ka former ko ci wàllu capitalisme ba xam ba mu dégg ko ba wax ne dégg na ko ñu yebal ko ci benn village ne ko demal boo demee nga nga appliquer fa li nga jàng nga pratiquer ko mu ñëw ci village bi fekk fa nit ñi nekk ci seen jàmm ñu ngi bay seen mbay muy ñor ñuy lekk yor seeni i sàq yor seenu jur di sàmm nekk ci seen jàmm yor seenu pénc di toog di waxtaan waxtaan jote mu ñëw xool nit ñi ak seen alal yi fi nekk mu yor tuuti ci xaalis dikk ne leen dama soxla lëg yuy jaay lapin wala wala leefar benn la defe na ah. wéjëre Cheikh Ousmane ah. wéjëre wojëre mooy lapin mooy lapin <laughs> mooy mu ñëw ne ay lëg la soxla ñu xalaat ñu ne ko ah, kër diw de moo fi am moo fi yar ay lëg mu ñëw ci diw moomu ne ko lëg loo koy jaaye mu ne ko benn ñaar téeméer mu jënd la fa nekk lépp yóbbu ne ko bu ëllëgee boo fi gisatee kuy jaay sax danaa ko mën a jënd lu ëpp lii daal di dem diw dikk ne ah mbirum lëj kat mel na ne dox na nettali ko gaa yi ci pénc mi ne jënd na li ma yoroon te nee na bu ëllëgee su gisatee yeneen dana ko jënd lu ëpp loolu ah waa ji daal di dem ci benn luuma fekk fa lëg yañ fa doon jaay yépp mu jënd ko moom moom waajoo ji jaayoon lëg yi dikk ak sareetub lëgam bu fees del teg waa ji dellusiwaat lëg yépp mu jënde ko benn bu nekk mille cinq cent ci misaal waa ji dikk ne waa ji li mu wax dëgg la bi mu daataan dem nee na ko soo amaatee danaa ko jënde lu ëpp lool bi mu waxee lool nag waa dëkk bépp génn kenn ku nekk ñu topp luuma yi luñ am ci ay lëg rek ñu dajale indi waa ji dikk yépp mu jënde ko deux mille cinq cent mu jënd ko deux mille cinq cent ne leen nag su ma dellusiwaatee li ma koy jënd dana ëpp loolu gaa yi ne nag kon mbir mi koy bu jëm ci yi te bàyyi mbay mi ñuy jaay seeni charrette ñuy jaay fase yi ñuy ñii jaay seenu jur ñi topp réew mi fuñ ci sug lëg rek jënd jënd jënd jënd ba lëg yi jàpp ne daal liñ dajale ci lëg moom waa ji bu delsee du ko mën a jënd mu delsi bi mu dikkee mu jënd lëg yépp 4000 mille ne leen bu ma delsee lu ko ëpp laay jënd deseetuñ dara luñ jënde ay lëg parce jaayoon nañ seen marchandise waa jooju nag lëgam yim yoroon bari na léegi mu yebal ay nit ci luuma yi di leen ko jaay lëg yépp benn 4000 francs gaa yi ne ah waaye comme que bu del si lopp 4000 francs la mën nañu jënd li ñu amoon lépp ci xaalis lañ dese woon ñu jënde ko ay lëgi 4000 francs waa ji bàyyi bañ dajalewaat seeni i lëg ba del si ba toog ci kër gi nga xam ne lëgi kese am ci dëkk bi mu ñëw nuyoog ñoom fekk leen ca pénc bi ne leen lëg yi de yama tax a jóg waaye péréb lëg nag dafa daanu ñu daanu lu muy jar léegi mu ne la ma ko jëkkoon a jënde mille francs ñi toog amatuñuy fas amatuñu jur amatuñ lenn lu ñuy def yor léegi kese te doyewuñ ko dara boo xoolee misaal la muy dund moo xam ne crise financière bi nga xam ne ci àdduna moo ciy daw lu mel nii moo ko ràbb moo ko ràbb dañ lay yoxal nga indi la nga amoon la nga gën a fonk nga di ko def di ko def ba mu yàgg nga dem ba àgg ci yëf ya taxaw nag amatoo foo jëm lañ bàyyi ci say loxo xamatoo noo koy def day dem ba ci biir mbay yi léegi la ñuy imposé la ngay bay loo xam ne xamoo li ngay bay yow fu jëm da ngay jaar ci àll bi gis nit ñi ñuy bay yoo xam ne mosuñu ko essayé sax dañu leen bay leen nàngam rek bu ngeen noppi dana baax te am na ci yoo xam ne musiba la ndax boo ko bayee ba àggal moom du am ngooñ amul ngooñ mooy jox sa jur te xamagoo luñ koy jënd bu àggee da ngay taxaw ne tóoj ci rek luñ la ca jox baax na coono bi nga defoon kon liñ bëgg a wax mooy àdduna tey ci wàllu économique foofu la xeex bu mag bi nekk waaye ñi jiite woon xeex bu mag boobu di teg plan yi ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo dem ba gàtt tey gàtt dellusiwaat aaja ku leen xettali ndax dañoo dem ba liñ doon ji tuuru ci seen kaw dafa dem ba tuur ci seen kaw mooy li lislaam gënoon a tere ci wàllu njaay ki doon conférence doon ko junj léegi muy wàllu ribaa ak bunt yi ci aju mu ñu li ñu tudde ay xarar ak ay jihaalaak mbir yoo xam ne da ngay jaay loo gisut yooyu ci lañ dem ñoom ba lab ca ba àgg ci foo xam ne dañoo dem ba mënatuñoo bañ a wàññi yàlla xam na ne eh, li imaam junj léegi dëgg la banque bu amul problème fii toll ci Europe wala Amérique bu dul moom rek xamal ne banque islamique la loolu moom gis nañ ko boo fa defee demee li fa nekk ci ay banque islamique léegi ëpp na 35 banque islamique ci biir Angleterre yoo xam ne mbir mi fa la leen fekkoon waaye ñoom yëguñu ko lu tax mooy l'islam organise organisation ci wàllu finance daf ko teg ci ay principes yoo xam ne lépp dafa leer kenn du jaay nit lu mu gisul kenn du jaay nit loo xam ne da ko cay nax lu bon nekk ci biir nga won ko ne ko ci kaw la nekk kenn du jaayante nit ci wàllu riba yooyu yépp boo ko boolee day dellu ci ak lu amwali nas bil baatil lekk alalu doomu aadama ci ak neen lislaam da ko tere moo tax banque bu fekkee ne dafa tegu ci yoonu lislaam ay nax da ca dul mën a am banque yi ñu tegoon nag di ci dox ci capitalisme bi dafa dem dem ba nax yi ci boppam moo ëpp doole leneen lu dul lool dafa dem ba ña doon naxe dem ba nax seen bopp te yëguñu ko joxoon naa ko mbokk yi ci misaal da ngay ñëw luye jënd sax kër parce que da ngay toog fu mel noona euh, beneen misaal la ci crise bi li ko indi dëgg dëgg dëgg seen diggante ak location yeeg kër yeeg njaay mi ngi mel noonu da ñëw nekk benn waaye boo xam ne liggéey bi nga yor sa salaire cent mille francs la ci misaal ñu ne la ah yow de mën nañ laa lebal kër kër goo xam ne sa kër la da ngay ñëw sañ ci dëkk bu weer dee nga fay cinquante mille francs ah loolu neex na de wala yaa ngi am cent mille francs par weer loolu boo ci doon dajale di jënd kër kañ nga koy am kenn xamu ko ñu ne la kër a ngi gu pare tabax nañ ko ba mu sotti kaay dëkk bu weer dee fayal cinquante mille francs nga ne loolu mën naa ko ñu ne la rek nangami at nga koy fay yooyu yëpp yow booba itteelu la nooy dëkkee ci kër ngay wax te weer dee doo génne location di fay boo demee bay signé nag contrat ba fa la ñuy def ay mbind yu sew ci suuf yoo xam ne ba wëttuwut foofa la mbir ma di nekk mooy dañ lay yëgal ne kër gi lii ñu la ko lebalee mat na dix millions waaye nii nga koy fayee cinquante mille francs ngay fay par weer waaye dix millions yi am na intérêt bu ci war a tegu boo xam ne cinq pour cent la ci misaal waaye nag intérêt boobu doonut lu sax intérêt boobu taux d'intérêt boobu day soppi nga ne lu koy soppi ñu la yaari yëf am na lu ñu tudde banque centrale saa bu ñu yëkkatee seen intérêt intérêt banque yépp dañuy yëkkatiku ndax ay bànqaas lañ ci moom su boobaa day yëkkati maanaam 5 pour cent yii ñu la wax su banque centrale xëyoon ne taux d'intérêt kat àgg na léegi 7 pour cent su boobaa yow it 7 pour cent loolu benn benn tomb beneen bi ci des ñu ne ko li tax doon lu sax mooy cinquante mille francs yi nga war a fay su weer dee bala cinq jot te indiwoo ko loolu un pour cent day daal di tegu ci taux d'intérêt bi mu doon doon ñaari danse yoo xam yaa ngi ci diggante bi waaye danga naan loolu moom garaw ndax man lii moom mën naa ko fay da ngay dëkk jël sa kër dëkk diir bu gàtt ngay dox ñu ne la banque centrale day yëkkati nañ taux d'intérêt bi kon léegi nekkatul cinq pour cent mais pour cent yokku na ci dangay mujj dem ba mu yàgg ñu ne kon kat soixante mille la léegi ah waaw baax na dem ba mu yàgg ñu ne la banque bi yëkkatiwaat na intérêt bi àgg na dix pour cent léegi ilaa kon kat mbir mi dana yëkkatikuwaat sa soixante quinze sa cinquante mille yi àgg na soixante quinze kon sa salaire lu ci bëgg a des vingt cinq nga dem ba mu yàgg banque bi yëkkatiwaat nga ne loolu de mënuma koo fay gi yoon weer wi dee le cinq jot indi woo ko ñu ne la mbir ma yëkkati ko waat na kon ful nañ ko dangay dem ba mu yàgg liñ lay laaj par weer ëpp na sa salaire su boobaa nooy def mooy duutoo fay soo fay nag fayit ga daal tàmbali ñëw su fekkoon ne mbir mi foofu rek la yem kon lu simple lay doon ndax nit ki dem na ba mu yàgg mënatu la dañ koy génne rek mu dem ñu jëlaat seen kër di noonu rek la kon kon bu yomb waaye du noonu rek fekk na kër googi bañ la ko lebalee crédit bi nga leen yoreel mu nekk 10 million séddale nañ ko ñoom li ñuy tudd ay ashum maanaam ay action wutal ko ay sanadaat maanaam ay bong yoo xam ne dañ koy jaay nit ñi maanaam kër gi 10 millions yi liggéey nañ ci lu mat junni bon yoo xam ne benn bu ci ne dañ koy jaayee nangam ñoom banque bi nit ka bu jëlee bong boobu da koy leb moom dem banque bi jox ko xaalis bu ko jëlee ci bànk bi day dem déposer ko fi beneen banque jël foofu xaalis bu ëpp loola di ca avance fii dem di liggéey fële nga xam ni kër gi mën naa dem ba valeuru kayit wi mu yor ci kaw suuf si tey ëpp na téeméeri million te fekk kër gi di million lay jar fa mbir may feeñe mooy waaye ji nga xam ne ñoom ñépp moom lañ doon séentu su demee ba mënatu la mu taxaw foofu la yëfee feeñe yoo xam ne ah kër gi ku ko la yoon mënatu la li ñuy wax mooy action yi nga xam ne moom la nit ñi jëndoon dañuy xëy xëy ne leen yooyu yëpp daanoon lam mënoon a jar mënatu koo jar xaalis bu ñu leen fayee nekkatu fi banque yi ci seen bopp xaalis nekkatu fi ñu taxaw su boobaa ku doon yaakaar ne sa xaalis a nga ca banque ba yoroo dara nu ñuy def dañuy dem ba mu yàgg ñu boobu moom fayit na daanoon fii ne Amérique ci semaine bi passé seen ñeent fukkeelu bànk ñoo tëj banque yooyu suñu tëjee musiba la ci seen économie bi yépp ndax fi ne société yi gën a rëy nga di leen dégg ñuy liggéey nangami million ci ay oto sociétés yi amuñu xaalis societé buy liggéey bu mu mën a doon ci wàllu industrie yoruñu xaalis boo xam ne dañ koo denc di ci yëkkati di fay waaye ci banque la ñuy dem chaque mois la ñuy jëlee ci banque ca la ñuy jënd seen matière première ba ñuy liggéeye ci la ñuy fay ñay liggéey su weer wi dee la ñuy jaay ñu jël ca fay si banque bi jëlati lu mel noonu noonu la ñuy def suñ ne banque ba taxaw na nag kooku li muy firi mooy société yëpp dañuy ànd taxaw benn moo tax firi boo dégg la ñu naan General Motors dañuy jékki-jékki benn société ñu xëy entreprise ñu ne leen nangami junni nit yebal nañ leen ne leen amatu leen fi ab liggéey dàq leen ñu dem parce que mënatuñ leen fay seen xaalis dem na loolu nag moo gagal waa àdduna bis nekk tey jël si ne li ko wax suñ ko waxul carrément ne ci lislaam lañu war a dellu it da ngay dégg ñuy wax lu ko nuru lool am na ku mag ci Europe fan yi déclaration bi mu def bind ko ci benn journal boo xam ne ci wàllu économie lay wax daf ne maanaam taux d'intérêt li fee wàcc li fee wàcc wuñ ko ba mu agsi zéro ah taxe yi ñuy jël ci nit ñi ñu wàcce ko ba mu ñëw ci deux pour cent suñu économie bi du dox taux d'intérêt bu ak si zéro mooy lan mooy bàyyi riba mooy bàyyi riba mooy intérêt amatul kon kay wax ja mooy kon suñ bàyyiwut riba taxes yi ñuy jël ci nit ñi 2 pour cent mooy lan mooy asaka asaka 2 virgule 5 pour cent la ci ku dem ba am ci ku dem ba am kon mbir mi dem nañ ba yëg nañ ni àdduna gëlëm nañ ñi leen war a mën a génne bis nekk tey nag mooy jullit yi rek waaye ndax jullit yi nekk nañ ci maqaama boo xam ne mën nañoo jël initiative boo xam ne moo mën a womat nit ñi tey kilifa gu mag gu dëkk Malaisie ñu koy wax Mahadir Muhammad nit ku am solo ci ci diineem ak ci wàllu ittewoom ci wàllu nu ñuy tabaxe am réew ci wàllu maandute ci wàllu lislaam benn congrès ci màkka bu ñu fekkee boo xam ne euh, dafa jëmoon ci wàllu économie banque islamique de développement ñoo ko doon organisé moom dafa taxaw am na ñu fa teewoon ñu bari ñoo xam ne ay njiiti gouvernement la njiiti gouvernement lañ daf ne leen problème bii ñuy dund tey génne benn document boo xam ne nee na kii fukki at ci gannaaw laa ko déposé woon ci OCI pour ne réewi lislaam yépp nañ ko yëg mooy réewi islaam yi nañ delloo siwaat ak diinaarul islaam yi te bàyyi sukkandiku gi ñu sukkandiku ci dollar ak leneen te delsi ci lo benn monnaie boo xam ne réewi jullit yépp ñoo koy bokk bañ sukkandiku ci kenn mu ne leen su fekkoon ne loola defoon nañ ko booba kon da ni si tey ñi jaaxle bu ñuy làqu si ci noonu danañ xam ci lan la ñuy làqu te bu boobaa ci suñuy condition la ñuy dox waaye ñàkk gaa def mooy ñii dem nañ ba jaaxle te amuñu fuñ làq li wér mooy amuñu fuñ làq parce que jullit yi ci seen jëmmi bopp ñoom nekkuñu ci position boo xam ne mën nañoo womat kenn fi mu ne fawda bi ngeen gis fii muy énergie bi ñuy dund fii di ko gis nit ñi ñu am njàqare lool ci ne li fekk tabaxaatuñ ay ndaw ak ay mag yoo xam ne dellusiwaat nañ ci siraatul mustaqim xam alal takkoo rapport bi nga xam ne am na ko ak imaanu nit ki mu yëg ne àdduna ci boppam tax koo jóg waaye day fàggu àdduna di ci wutaale àllaaxira def ko moyen li fekk demuñu ba àgg ci am nit ñu mel noonu jullit yi ci seen jëmmi bopp ak fu ñu mën a nekk du solution bi ñoo koy dund ci këram nit ñi ñu gis ko muy nag mbir mi ni mu demee dëgg-dëgg mooy lii Ousmane junj jazaahullahu xeyran muy fonds solidarité bi nga xam ne mbokk yi jiib nañoo góorgóorlu ba taxaw ko ak euh, fonds de la zakat bi nga xam ne itam mbokk yi góor góorgóorlu lañ ba taxawal ko ñaari mbir yooyu mbokk yi ko taxawale seen xalaat li ko indi mooy ñu yëg ne mbir mi daje di wax nii rek sottalu ko waaye nit ñi il faut ñu wan leen dara il faut ñu def dara wan leen ko ñu gis mahadir moom ma tudd première ministre la woon ca Malaisie bi mu dikkee dafa fekkoon am réewam jafe-jafe yu metti la ñuy dund premier ministre ba ko jiitu woon ba mu fa jógee mu ñëw toog palaasam bi mu toogee bis bi mu njëkkee toog bind na ko ci ay mudakiraatam dañ koo indil benn livre mu ne livre bi lu ci nekk ñi ne ko réalisation yu gars yi jiitu woon dañoo bëgg nga yër ko su ko defee mën a xam fan ngay tàmbale ak lan ngay def nee na mën leen fab leen seenu téere duma ko ubbi réalisation ci boppam kenn du ko jànge ci téere ci mbedd mi nga koy jànge réalisation ci ëm réew nee na booy dox ci mbedd mi foofa nga koy jànge te jàng naa ko foofu li may ñaan yàlla mooy su ma amee fii diir bi ma am su ma fiy jógee ku jaar ci mbedd mi boo xoolee làmp yi da ngay jàng réalisation yi boo awee ci télé bi boo yoree sa pañe dem ca marché ba jàng ko foofa limal leen ay yëfi yëf nangam nangam ba mu àgg bi mu fa amee fukki at bi muy bàyyil boppam parce que kenn naru ko woon a wàcce bi muy bàyyil boppam réew mépp dañoo daje di jooy ne kii wër ta dem parce que tabax na fa loo xam ne kenn jàppul woon ne ci dix ans kenn mën naa def lu mel noonu mbir mi mbirum liggéey rek la te ki nga xam ne muntalaqam muy fi mu déparé mooy lislaam ak pas-pas ak gëm ne njub dafa war a am koom-koom door a ñëw kooku mbir mi da koy yomb lool Omar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala ñaata at la am soppi koom-koomu réewam ñaari at ñaari at te ba mu fay ñëw day la mu fa fekkoon demewul noonu wax dëgg yàlla waaye bi mu ñëwee nu mu def fu mu tàmbalee ci boppam ak ci njabootam ak ci ñañ doon tudde bóor yi ci ay jamono ci ñoom la tàmbalee bi mu dikkee fekk na soxnaam rek faatuma li mu dencoon ci or kenn xamul nu mu toll ndax doomi buur la sëtu buur la lim donne ci ñoom ci ay or kenn xamul nu mu toll bi mu agsee ñi ne ko yow yaay amirul muminin tey ba mu jaar fa mu jaar ba agsi delsiwaat këram daf ne ko génneel li nga am ci or lépp mu génne jal mu ne nañ ko sol ci saako ñu sol ci saako mu ne ko lii nag mu ne ko baytul maal lay dem lu tax mu ne ko moomoo ah maa ko donne ci sama baay mu ne ko sa baay moomu alali jullit yi foofa la tàmbalee ci moom yóbbu baytul maal biñ ko falee yëgal ko ne ko yow yaay amirul mu'minin ndax ci leetar la ko Suleymaan def Raja ibnu Xaywa mi nga xam ne moo sosoon rëkk ci Suleymaan doon itam ku baax di borom xam-xam nekk secrétaire wala directeur de cabinet moo xam pour wuñ ko jox moo sosoon ci moom rëkk daal bi Suleymaan demee ba xam ne day faatu daa bind leetarub ki ko war a wuutu moom def ci turam Omar ibn Abdul Aziz gis Sule Raja ibn Xaywa di waaxu yi dem ak a ñëw mu ne ko yaa ngi dem ci amirul muminin ak ñëw de lu xew mu ne ko amirul muminin dafa nar a dénkaane nit ku koy wuutu mu ne ko mbaa tudd ma mu ne ko xaw ma ci dara. génn am ñeneen ñu koy dab naan ko mbaa mën a mu ne leen xawma ci dara biñ demee ba wóor ne amirul muminin faatu na bañ denc ko ba àggal ñëw ci jàkka ji raja ibn xaywa génn leetar bi ñu dajale jullit yépp mu jàng ne omar ibn abdul aziz lañ wuutal omar ci jataay boobu dafa xëm ndax metit ak am lu ko naqari bi mu xiqee daal ne maa ngi leen di yëgal ne mbir moom mii ñuy wax dañ ma ci tàgguwut ginnaaw tàgguwuñ ma ci nag ba ma joxe ci sama xalaat maa ngi yëgal mboolem ñu fi teew ne wàccewaat naa sama bopp jullit yi nañ tànn ku leen sopp mu wutu leen waaye man man maay nekk amirul mu'minin mbooloo mépp jóg taxaw ne ko yow bi mu demee nag ba xam ne pexe amut ci foofa nag la tàmbalee faw maanaa yu mel noonu ñu delloo waat politiciens yi xam ko borom xam-xam yi xam ko imaam yi xam ko ñu jàngat ñooñu bi mu génnee ci jàkka ji ci bis bi nga xamee ni ci lañ ko war a jaayante moom nag jaayante bu mag bi mu génne këram jëm ci jàkka ji dañoo indi nag cortège bi nga xam ne moom lañ daan defal amirul muminin ay fas yoo xam ne collier yeeg laab yeeg yépp or lay doon teggeeg yañ lal ca kaw ak xeeti yëf mu ñëw ne lii lu mu doon gis ñu taxaw cortège bi li amirul muminin war a war ak parasol yi koy tiim ñooy topp ci moom ak yeneen fas yi nga xam ne ministère yee koy war mu ne lii lan la ñu ne ko lii mooy cortège bi nga xam ne ku nekk amirul muminin yow foo jëm mooy ànd ak yow mu ne bis nekke tey yi cortège moom fii lay yem daal di jël fas yépp ak la ca nekk ci gànjar gu àndal gépp ne nañ yebal baytul maal trésor lii lépp alali jullit ñee kenn moomu ko ñi jël yooyu yëpp boole foofu mu dox ak tànkam dem ca jàkka ja taxaw ci kanam jullit ñi jaayanteeg moom bi mu jegee ci lool ñépp ñoo xam ne ay bóor lañoo ñi ne bokkoon ci Abdul Malik ibnu Marwan Suleymaan ibnu Abdul Malik bàjjanam yi nijaayam yi baayam yi ndaw yépp daf leen a dajale ni leen fu fi waay nekk koo xam ne da ngaa ci or bu bari wala alal joo xam ne ju jéggi sa aajo yu gis la na nga ko indi ndax moomu leen ko ay buur a fi jaaroon di ko dajale te alali réew mi la ñu dajale alal yooyu yépp yóbbu ko baytul maal alal daal di dajaloo foofu joo xam ne nag dal nay bari lool kooku mooy départ Omar ibn Abdul Aziz ci biir lool nag ci la tàmbalee bayt boobu muy baytul maalu muslimin daal di dund nag ci wàllu asak mu def nag benn taamim maanaam benn décret boo xam ne daf ko yónnee ne fépp foo xam ne ndaw lu ñàkk nekk na fa na wuy si su fekkee ne dafa amut liggéey ñi xam lu tax amut liggéey ndax dafa lompañ maanaam daa mënta liggéey amut kàttan wala daa am kàttan te jàngaluñ ko nu muy liggéey wala lan la foofu lañ tàmbali nag asaka yi ñiy jox nit ñi ku ñëw dañ lay jox ci asaka loo xam ne dana mat sa dund at ne la góor góorlul nag ba waxtu bu delsee da ngay génne asaka waaye kat waxuñu ne asaka dañ lay jox nga dem toog sa kër lekk bu jeexee bu waxtu jotee nga ne naa ñëw jëliwaat déedéet jox nañ la loo xam ne mën naa dund at bul toog di ko dundem at seetal li mën a dund ñetti weer nga teg ko fële juróom-ñaari weer yi ca des gaawal liggéey bu at may dellusi rek fexeel bu bokk ci ñi mën a génne asal plan boobu la Omar ibn Abdul Aziz teg bi at ma daataan dellusi li ëpp ci ñooña commencé di génne asak baytul maal alal daal di fi dajaloo yoo xam ne bari na ñu commencé nit ñi ku ñàkk ku ne te mënoo liggéey ñu defal la salaire boo xam ne bu weer dee nga jël si ko ci lañ dox ci loolu bam li ñuy tudde faqir ci biir ñaari at yooyu amatul ci biir état Omar ibn Abdul Aziz dem nañ ba ne asaka yaa ngi nii gisuñu ku mën a ñëw jël ko kon ma ne ci wàllu lislaam moom amut problème ci alal fan lañ war a mën a jaar ci réew ba développé ko waaye jullit yi ñoo am problème boobu gis nekk day jullit yi ñoo ko am jullit yi tey am na ñaari problème yoo xam ne benn bu ci nekk rek doy na ngir seen koom-koom bañ a baax benn bi mooy ñàkk nangoo liggéey bari na lool ci ndaw ñàkk nangoo liggéey tasaaroo na lool te nit ki dafa war a liggéey ki am kàttan dafa war a liggéey noonu sunu askan liggéeyuñ liggéeyuñ liggéey bi yépp yépp jaay ak jënd la boo jaaroon fii tey yoonu mbuur li ngay gis ci ay terrain yoo xam ne dañ koo miire teg noonu yoo xam ne ay tool la tudd de yoo xam ne dañ koo war a bay su fekkoon ne terrain yooyu li tàmbalee jam ñaaju bu mbuur tey ñi ngi fi bay lépp lu doomu adama soxla kon ñàkk mën naa bañ a am ci réew mi waaye nu ñuy def terrain bi dañ koy collecter bàyyi noonu lu tax pour mu am ay at gën a cher kooka jaay ko nit kooka nu muy def bàyyiwaat ko fay at mu gën a cher mu jaay ko keneen ñu continuer kon jaayante ak la waaye du liggéey loolu nekkul développement boo xam ne mooy moo ci la mooy doon liggéeyukaayu ay doomu aadama lu mel noonu dafay war kon nit ñi nanguwu ñëw liggéey bul yaakaar ne réewi tubaab yi nit ñi gaaw di def ay mbëkk di jéggi géej yi ak dem ak ñëw ak ay Barcelone ak ay yu kenn xamul bul defee ne ab xaalis dafaa nekk bu ñuy séddale boo xam ne bu nit ki ñëwee rek am wala nga yaakaar ne gouvernement yi ci seen bopp ñoo leen di jox ay place ñuy liggéey déedéet ay doomu aadama yu am xaalis ñoo fa nekk dem ci àll bi di liggéey ñii ngi yor seen i tool ñii yor seenu càmm ñii yor seen nangam ñii yor seen nangam te amuñu loxo yu leen mën a taxawal ci liggéey boobu ki jóge Afrique nu muy def bu dikkee ca tool ya lay dem kooka di ko exploité muy liggéey mu di ko fey la mu koy fay mu doon lu tuuti lu mu tuuti tuuti doy na ko ndax moo moo tane la mu jóge woon su fekkoon ne borom alal yi ci réew mi ñoo ubbi yu mel noonu tey te kat ñi ngi fi moom moom ñi ngi fi moom su doon ñëw ubbi palaasu liggéeyukaay yu mag yooyu nga xam ne lu ci palaas tuuti tuuti day jël junniy nit te bañ a séentu loolu ci ak gouvernement kese kon naga ni lii nuy dund tey duñ ko dund kon mën nañoo jàpp ne suñ askan moom wax dëgg yàlla ñi ngi dukk dukki di def loo xam ne day nit ki dana ci mën a am dépense am ak lu muy lekk waaye liggéey nag boo xam ne day indi développement ci réew moom jullit yi dundaguñ ko beneen bi ci des mooy yàq ku liggéeyu booleeg di yàq résultat ba lu muy yàq gi moom moom fu ñu ko takk weesu na ko takk weesu boo xooloon xew tey ci Sénégal lañ fay def lu ñu leen def loolu ci xew yoo xam ne xew yu jëm ci wàllu social la lu baree bari la ci xeetu yàq danañ farey ak jur ci anam goo xam ne bokkut ak su fekkee lu lislaam santaane woon la bokkut ak dama ko santaanee woon danañ fa yàq ci ay ceeb ak i diw ak yoo xam ne askan wi aajowoo nañ ko ci benn bis loo xam ne lislaam sant leen nga bàyyi xewu social diggante ciit ak ngénteeg lu mel noonu nga ñëw ci yeneen yi nga xam ne nag lislaam da koo santaanewut sax nag faf nga xam ne benn day dugg ci cadre mooy yàlla wala mu dugg ci cadre biddaa duggal ma ca sarax ya trois jours yaag quarante jours yaag annuel baag saa at ma del si ñu delluwaat gàmmo yaag màggal yaag cant yaag yépp nga xam ne lenn lu ci ñëw lu nekk boo compter ci at mi ñaata lañ ci rey ci at mi ay nangami junni nag ngay lim ay nangami junni xar ngay lim ay nangami tani ceeb ngay lim te lenn lu ci nekk ci benn bés lañ koy xëy faagaagal mu jeex yu mel noonu bu amee ci am réew réew moo xam ne liggéeyu seen koom-koom demewul noonu yàq gi àgg foofu te mu doon mbir yoo xam ne kenn ñemewul a toog di ko tudd itam maanaam même ñiy wax ci wàllu économie ak ci ay gouvernement ak yu mel noonu dégg naa sax ñuy wax ba naan wàllu tabaski yeeg aj géeg yu mel noonu dañ ko war a organiser waat seet kii yu mel noonu yàq gi nekk fii mooy lu rëy li foofu la nekk mais ki toog ci këram ba am biyam bu mu aje dem di aji kooku beneen affaire la alali boppam la yor mais ki jëw jël koom-koomu réew mi nga xam ne mooy jur gi ñu yaakaaroon ngeen di ko jënd di participer di ko jënd di jënd boo jënd ci lu ma trente mille am na benn xew-xew boo xam ne trente mille teet yooyu naag nag moom lañ rey ci benn bis lu populaire moo ko bind un million ci ay ganaar suñ bi loolu loolu réew mu mel noonu seen koom-koom fan lay fan lay taxawe ku mënta régler yooyu ba mu tegu ci aw yoon koom-koomu réew mi ci wàllu développement bu yaatu doo ko mën a régler loolu mooy li wér loolu mooy li kon am réew la mu nekk moo xam ne mu jafe la lan mooy solution bi nag solu solution boo xam ne définitive lay nekk mu amut loo xam ne day mel ne ak njabar rek ñi ñëw ñu ne sotti na déedéet ab liggéey bu yàgg la boo xam ne mën naa ko bañ a fekk yow mën nga ko bañ a fekk keneen mën na ko bañ a fekk tàmbaliwaat di tabaxaat aw askan loolu lan aajowaat nuñ koy tabaxee ci ñaari mbir jàng ak yar jàngale yar jàngale li ma ci lu mooy jàngal nit ñi bañ xam diine waxuma ñu mën a liifantu de xam alifun baa un taa un wala ñu mën boo leen joxe araab ñu mën koo liir wala ñu mën a taxaw di làkk arab waxe wu ma foofu waaye fi may waxe mooy nit ñu am fiq fi diin nit ñoo xam ne kenn mënatu leen a ndax ci diine ji boo nee diine seen alxuraan seen xel dem ci alxuraan ak sunna nit ñu mel noonu lañ soxla ci diine boo nee diine seen xel dem ci alquran ak sunna du dem feneen mooy lan nit koo xam ne dem na ba kenn mënatu koo nax ci pas-pasam boo indee shirk mu ne la lool bokkaale la du ma du ma nangu kenn mënatu leen a nax ci seen jaamu yàlla boo indee bidaa ñu ne loolu bokkut seen jikko ñu copier ko ci jikkoy saxaaba yi ñu mel ni leen soxla suñ amee ñu mel noonu ci wàllu diine suñ lépp dana defar waaye nag amul benn jaaruwaay boo xam ne mën nañ faa jaar ba régler lii nuy dund tey te delluwun ci wàllu diine as réew su ndaw lan yor ñi fi nekk ñëpp daanaka ay bokk lañ li leen war a mën a boole bari na lool waaye diine moo leen tàqale te diine daa ñëwoon ngir boole kon nag dundalaat diine ji mu delluwaat ci alxuraan ak sunna loolu moo mën a boolewaat sunu askan mooy tax seen doole ji ñuy séentu ci ñoom ñi man koo am ba luñ bëgg a tabax man koo tabax ba proposition yi nga xam ne moom la imaam doon junj ñi man koo def tabaxaat googu mooy jiitu su ko defee lale tegu ci ñi ngi dellusiwaat di ko sant di sant moo mboolem mbokk yi di jéggalu ci guddal gi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi te jéggal ñu te nangul ñu kon yii ñu dégg ku nekk dafa war a fas ne man la wax man la waxe te bu soobee yàlla dinaa soppeeku loolu sax ci moom mu fas ko yéene di fexe nag ki teewuloon nu muy def ba jeexantal ci moom ba saxal ko ci moom ba moom itam mu jël Eh, istidaad boobu maanaam mu nangu ne loolu itam insha allah sama warteef la dañ ciy taxaw kon mbokk yi nga xam ne ñoo organisé woon ñu ngi leen di santaat bu baax a baax ndaxte dañ ko tuddee woon ñaari fanu tàggatu kon insha allah nekk na tàggatu macha allah ña nga xam ne ñooñu lañu tànnoon it ngir ñu ñëw tàggat lañu xaaroon ca moom dëgg-dëgg gis nañ ko ku nekk ci moom taxaw na ci kem kàttanam bàyyi ay yitteem ñëw teew si ci tàngoor bi ci xat-xat yi waaye daa yëg ne rek benn warteef ci warteefam yi la keneen du ko ko defal kon moom mu ñëw mu ne mën dinaa ko defal sama bopp ñoom ñépp kon ñu ngi ñaan ci borom bi subhanahu wa taala gëstu yaag jéego yaag tàngoor baag yépp na ko borom bi def fii ci seen miisaan xasanaat yowmal qiyaama te borom bi baaxee ñu ñu ñépp mu jéggal léegi nag ñu ngi ñaan dëgg-dëgg toogaay bi métti na ñu jéggal masaayix yi ci laaj yi insha allah takwin bi mu ñu jox rek ñu góor-góorlu rek mooy ci loolu buñ ci mooyee di ko leerlu di ko dëgëral rek insha allah loolu ab njëriñ laay dal di doon ngeen yóbbaale xelaat nag li sosu naka la ñuy def ba mu gën a dëgëraat te ñu xelaataat naka lañuy def nag ba yeneen tàggatu amaat ci yeneen bërëb ndaxte dafa war a matale war na dem ci yeneen bërëb ci yeneen jàkka mais war na demit ci région yi kon yooyu yëpp ñu bokk xelaat ko ñuy ñaan ci borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu jéggal jubal ñu nangul ñu wa ma dalika ala allahi bi aziz wassalaamu aleykum wa rahmatullah wa jazakumullahu xayr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 لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعراض صار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أن تنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه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 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هِيَ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم ۖ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 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم ۖ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ۖ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار بر كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه